أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاذكروا الله تبارك وتعالى في على كونه سرور النبي ولم يقتفي صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه وكل من طاله ووصيكم فيه وبعد بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائق والأقوال والأفعال واعتلاء تعالى القائد وأعوذ بكم فيه وما عدو أن في حلم لم يختر لكم من العبادات والعادات إنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم وهو هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملازم مختير له من منير لبه ويل لكل ويل لمن خاده إبليس إلى مساه فإنه يلازم ما أخصى وأساه قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم رسول فخصوه وقال تبارك وتعالى وما يحمل مثقال سرة خير يره وطوبى لمن أخذ ما أتى به رسول عليه بآله وصحبه سلاما معتزول وللذي همته طرق إلى الخير لا إلى الكدر لا إلى الكدر وطير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاه ووصيكم أيها الإخوان بأتي من كفاني سوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا حينما فارقته وتجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل عن فعل كل ما لم يتبين لكم كون وصوابا فإنه مما يوجه إلا خيركم الأجر والرضا وصوابا ولا تطلب الكرم بخير تقوى فإن الكرم هو تقوى ولا تطلب الحزة من خير الحزيز المعز بجاه عبده نبيه ورسوله الأعز حين من أدبر أن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه عن نفس مع نفسي وهواه ومن أقبل إلا الله تبارك وتعالى مع الوسيلة خاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب xabla mawtihi innahu yasmu inda mumitu maytihi man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man wa'azahu nasiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim الحمد لله الذي جعل يوم الحيد يوم توسعة وتفريح والإملاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والصدق والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا في سير فيه لم نشارك الحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مختفيه فينا هذا اليوم يوم أكل وصول وحيد فرد لمن جاد فرد خيرت فتح خيرت خير ومن شكر الله تبارك وتعالى في إنه يصبر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا في من الله تبارك وتعالى خيره إنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم دائره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة الحسيان فإنه يغفر لكم ويكفر إلى خيركم سوي الخيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع إن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا في الاجتماع بجائزة الخزاوة المرضية صلى الله عليه وآله وصحبه سوي الأرضية الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له صديق في الملك ولم يكن له ولي من الظلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرنج بلين نمبوكي جليد يفتا سيب مولين دنوي بباخ تدلين سيارة بباخ تدلين بلو أق بباخ تدلين بال أق بباخ di jiital ci nuyoo bi kilifa ak barab bi sëriñ Abdul Xaadir ak maam sëriñ Bousso mbokkam mi mu dende ak mbokki taalibe yi fi ak mbokki ak njaboot gi fi teew yëpp sëriñ bi nee di sant yàlla sun boroom moom mi nga xam ne ci xéewalam ak ndimbalam moom moo ñu may ñu mën a tase fii ngir jooxe sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mu jóge woon ci sun maam Ibrahima mu ne Serigne Touba santoon nañu ne mu ne nañuy sant yàlla ci xéewal gii mu ñu xéewale ba mën koo jaamu Sëriñ Tuuba nee na loolu ndimbalul yàlla la mu ne yàlla rek moo mën ne dimbale ab jaamam mu mën koo jaamu te nangu koo jaamu nee na loolu sëriñ bi nee na moom sëñ Bamba ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mune la ci dess nak mune waxtu wi ku ne xam na ne bis bi khatna dañuy fatali ko ante rek ci li nga xam ne na ko jangate ci bisub tay bi muy ak ragal yalla ndax sun mam Ibrahima ak ragal yàllaam àggoon na ci boromam sant ko ne ko mu rey doomam moom mu am yéeney jëfe ndigalam loolee ngir ak ragal yàlla rekk gu mat sëkk ak pas bu mat sëkk ak dogu gu mat sëkk mu ne loole nag bu ñu toogee di ko fàttaliku war nañoo fàttalikoo la taxoon mu am te moy ak ragal yalla rek nak ak jaam bo xamne boromam digal nako ko mu am yene def lako yalla sante lepp lu la yalla digal boko jefe ngir yalla ak cyant rek mo ci mujj te ko ne gis ci bis bi ndax suñ maam Ibrahima ba mu amee yéene def la koy yàlla sant diisoo caag doom ja doom ja nangul ko ko mu diisoo caag soxna sa soxna sa nangul ko ko bañ demee bay rendi ba mu sëggee am xër la fa fekk de Seydina Ismaahila taxaw na le ñoom ñëpp ñu bokk sant suñ borom kon lol de ñu tektal ne lepp lu ñu yalla sant dañ kon nak ko jëfé ngir yalla ak cant rek a cay mu ne kon nañ gor gor lu bu baax a baax te ñu and ak taqwa ak ragal yalla ndax sun borom nee nañ ci alquran nit ñi ci ragal yalla rek lañu gënanté kula gën kula ci ëpp la ci ragal sun borom rek mo la gën mu ne kon nak nañ bayyi xel bu baax ak ragal yalla mo mëna tënk nit ba lepp lu muy def di ci bayyi xel sun borom mu ne ndax bu dee loo rus wala loo ragal lolé bu faddo man nga def li nga bëgg def waaye ak ragali yalla bu nekké ci nit yalla mom day duma sa faddu mukk mukk mukk du wuté mukk lepp lu ko moom mu ngi koy teewe kon nak ku ci ragal yalla la ngay def ak la ngay bayyi dang ci xalaat nak sun borom bu sel bi bu baakha baakha ba ndax ku ne gis na jamono fii mu toll ak réew mi ñu nekk gis nañ ay wax yu bari yoo xam ne bu ak ragal yàlla jiitu woon loolu mën a yaakaar naa ne de kon loolu mën naa bañ a am ndax ñu jiital la dénk la dara lu ñëpp bokk nga def ci jubari di ko luubal loole ba ak ragal nekk yàlla nekkoon ci yow lala kala kala ko dénk wala kala ko dénk ak ragal yàlla nekk ci moom loolu daa mukk te te ku ne dégg na ci réew mi liñ dénkoon ay béréb ñu dégg na dénkoon def nañ fa nangam ak nangam loolee nag lu jara moytu la yar ci bopam yar ci ak njabootam bo gisee fan yi li ñuy daj bo am xar mo tabaske ngir bëgg tabaski boko ci farata yalla lala yalla gal ci sa bop li nga bëgg lepp dang ko ci suñu borom mu ne mën naa am bu boobaa sax bu ñu àggee ci tabaski am xar le moo ñëw ne la maa ngi nii te loolu ku ne gis na ko ci Seydina maam Ibrahima ba mu jëfee ndigalul boroomam ngir yàlla ragal yàlla ba mu ba mu taxawee am xar la gis mu tëdd loolee nag mu ngi fi waxtu wu ne du fi jóg mukk lépp lu nit bëgg te di ko sakku na ca ak ragal yàlla jiitu ndax sun borom nee na képp ko ragal yàlla lépp looy dugg sun borom moo la ci defal aw génnuwaay suñ borom nee na képp ku ragal yàlla say mbir day maa la koy jàppandalal kon nag buñ bëggee am jàmm te ami xewal nañ maase ci ragal yàlla moo ñuy may njëriñ fii moo ñuy may njëriñ fa ñu jëm ndax suñ sëñ sëriñ bii ñu yaakaar suñ digg ak suñ boroom gis nañ ku nekk la ko ragal yàlla jaraloon ndax xam nga ne ku dem ba ci am diggim ndox Nek ci way te borom way ya de, dañ koo tañtañal bu metti ba mu ne jek der ba ko ci ndox ma di julli ak ragal yalla rek ko war te ñu ne mom lañ kon nak lolé war nañ ci roy maam señ Bamba bu baax a ba te ku ne xam na lam man ak famu ag, àgg wuñ ko kon nak bo defé la nga man sa jaar day wacc mu ne kon nak nañ gor lu baax ñun ñi nga xamne dañuy yëngutu ci jëflante ak suñ mbokki jaam yi nañ ci jital ak ragal yalla te lal ko ca ndax buñu gisé ne fan yi xew-xew bi ñu bari bëgg dem fañ dëkk bëgg ku fa défé ji am ñu taxaw tém bëgg leen a taxi bëgg leen taxaw taxi taxi bo xamné jaadu de nit ku ragal yalla du ko def mu ñu gisit jaay kat yi da nga gis ko bëggum xar tem leer na le lii mu am mën nga ko cee jaay te du la wàññi dara waaye xam ne soxla na rek tax nga jéem a takk biiram te seeral ko loola de ragal yàlla jiitu mu ne kon na góor góorlu bu baax ci ragal yàlla de moom du ay wax de ay jëf la kenn ku ne la ngay jëf di ko jëflanteeg sa borom di ko jëflanteeg sama romi jami, yi danga ci jital ak ragal yalla boko defé ndimbalul yalla de lay fek tawfiq sun borom fek la ca kon nak mu ne bi neena yalla yàlla ñu ci yalla dimbele neena yalla nu yalla gëna dimbele ci talube gën ño sàmmal suñu diine gën ño suñu ngor gën ño suñu talibé moo ne sëriñ bi nee na nañu góor góorlu ci yar njaboot gi nag bu baax ci jàngal leen ci jàngal leen alquran ak diine ndax loo xam ne day waajur yi danañ ko layoo ëllëg ak seen njaboot mu ne kon nag balañ ca àgg nañ ci góorgóorlu bu baax a baax mu ne ndax nit boo ko yaree ci ak ragal yàlla ba mag ca dana am lum jomba def way dana xamne yalla ngoy nga fuglu waxtu ne mu ne waaye lii ñuy daj ci suñu ité bop yi buñ ko dajé ci yar njobor gi ñu ragal yalla jam day am fep mu ne suñ borom xamal nañu ne buñ ko gëmon ta ragal ko xewali day day bawo fu nek di ñew kon nak nañ góorgóorlu ci ragal yalla li ci dess nak moon sëriñ bi leena mu ngi soñu ñu ngi mu ngi soñu bopam dañu mu ngi soñu bopam dañu soñu bu baax ci li nga xamne moy dimbalante ci sunu bir ñu góorgóorlu ci bu baax ndax li ñuy def fi da ko fi faral di tassé di ko def te ngir yalla rek tax ak lu julli di mëna a rek lañ ci gëna a farlu baaxa baaxa a baax a te and te yalla tax dimbalante ngir yalla de jappalante bu baaxa a baax te jital ci nak walu set gi ñu ngi ñaan mbokk yi bokki dëkkandoo yi ni ñu setale bërëb bi fan yi te yalla rek tax ngir yalla nañu dimbalé nak takal gi dé ñu bañ ko def ndax set da bokk ci diiné kon nak nañ ci gor gor lu bu baaxa baaxa baax ni moy sëriñ bi leer mo ngi soñu ñëpp di ñaan nak suñu borom mu defal ñu jamm defal ñu xewal defal ñu njub defal ñu tawfex bañ am li ñuy sakku ci sëriñ bi yalla man nako ko yàlla yalla defal yalla ñu teewaat bi ci at yu bare bare bare ba te yalla sun borom bi nangu jaamu yi ñu ko ci defal ndax yalla jaamu yalla giñ koy defal ci bis mom de sun borom ragal yalla go dong la ci soxla nak mu ne daa mel li ci res nak suñu yitey bop rek la nak kon nak nañ ci jita ragal yalla go ke neena yalla yalla def jàmm ci rew mi ak kilifa yi ko jité ci walu diiné ci walu haada yalla defal len tawfiq defal ko wa rew yépp defal ko réew julit yeb di ñaan nawet bi ñu jublu yalla indi ko ci jamm te mu and ak jamm te barkel ba ñepp jariño ci barkam Serigne Touba mune waxtu wi mo xat mo tax dañ koy tank fi men Serigne bi leena mo ngi delu balu ak ñepp ñepp de siyaare ñepp ñepp de bal ñepp ak السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته